mbokki internet dal leen ak jàmm seen chaîne youtube buzz Sénégal gannaaw biñ leen yow ñu rafetlu bu baax a baax ànd mi ngeen di ànd ak ñun li gën a ci xibaar yi dañ koy dooree di jëm nag ci mbirum ma foofulee ca cour d'appel bu Thiès ki lee di Saliou Samb moom nag dañ nay perte nouveau ci kanamu ki lee di Ferdinand Coly ci naka noonu rek war ko verse ab koppar bu takkulal gannaaw kon bi nga xamante ni rek juge bi nekk foofulee ca cour d'appel bu Thiès dañ nay jël ab décision daal di ko konoon rek da di condamné kile di Saliou Samb waaye tamit war a verser ab par bu toll ak 800 millions de francs CFA ci ki nga xamné rek moy Ferdinand Coly di jëm nak ci mbirum escroquerie le 29 juillet 2024 la cour d'appel moomee condamné réduire boobu les sommes initiales ci ki nga xamné rek moy Saliou Samb bi nga xamné rek condamné 2 deux ans de prison avec 6 mois ferme ba un an de prison avec 10 mois de sursis ci à condamnation moom di Saliou Samb war na verser koppar bu toll ak millions de francs CFA donte sa moom Ferdinand Coly mu ngi doon réclamer ab koppar bu tolloo ak 1,2 de francs CFA waaye nag boobu les juges rek dafa daal di jël ab ndogal Saliou Samb mu daal di koy verser millions de francs CFA moomu Ferdinand Coly nag nekkoon ancien joueur des Lions du Sénégal moom it nag mu daal di woon accusé kii di Saliou Samb li jëm ci mbiru escroquerie ci ab entreprise bu ñuy duppee Blue Trade compagnie spécialisée dans l'exploitation et l'importation de produits halieutiques tax nag ñu ngay xam ne ni rek donte boobu les juges rek dañ lay wàññi boobu les peines jëm nag ci ki nga xamante ni rek mooy Saliou Samb mooy tamit mu daal di dindi interdiction de cinq ans d'exercice ci ay activités commerciales dans le secteur des produits halieutiques à la condamnation financière nag ñu xam ne ni rek kon moom mi ABF Galma MPK ak ki nga xam ne rek mooy Mamadou Niang nekk nag beneen ancien joueur des Lions du Sénégal mu investir ci boobule entreprise lu ëpp 325 millions de francs CFA waaye nag ñu daal di xam ni rek moom milier daal di wutoon a plainte tax nag ñoo ngay xam ni moom Ferdinand Coly rek a plainte bi nga xamante ni daal di woon na def jëm nag ci mbirum escroquerie jëmale ko ci kilé di Saliou Samb jamono ji lekkoon nañ kon condamné waaye tamit mu war a versé ab koppar bu tolloo ak 800 millions de francs CFA moom mi lekkoon di Saliou Samb kon war ko jox ki di Ferdinand Coly mbokk yi nekkoon na boobule xibaar bi ñu leen indiloon ñoo ngi leen di ñaan ngeen abonné partagé waaye tamit ngeen ne bés cloche de notification bi ngir ngeen di mëna jot suñu ay xibaar saa su ne ngeen jëf